mbokk yi ak xarit yi dañuy déglu maître El Hadj ñu déglu kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ñu soog a ñëw joxe ci sunu gis-gis ak sunu xalaat je vous en ku nar a taal Sénégal ma taal sa maam taal la barke alxuraan du ma ci bañ dara waxoon leen université Dakar dañ koy taal ku doon ngi ci réew mi hélicoptère lay envoyé ñu yoree ñëpp hélicoptère lay envoyé ba bombardé ñëpp yi daal université bi dee non heure dee bu gëtee ku deewul dogor bàyyi sama université bi formé samay xale ay ñoo xam ne kenn fu ñu jógee di taal le temple du savoir ay waay maama hélicoptère de combat mais ñooñu di taal ñuy bàyyi ñuy taal di taal déclare la guerre au Sénégal suñu xam-xam suñu mémoire jarul ree tim ñi ñuy taal ñu taal leen heure dee bu jotee ku deewut doo gor loolu waxu olof la maître Diouf répété na ko mais fi mu ko dugal moo baaxut parce que moom dugalu ko ci heure dee bu daf ne heure dee bu jotee ku deewut doo waaye li mu wax nii moom dane heure rey parce que li mu wax nee na day bombarde ñëpp rey leen kon dafa waroon a wax ne heure rey bu jotee waaye war tax heure dee bu jotee parce que li mu expliqué foofu la jëm parce que boo nee damay rey ñëpp nga wax loolu daldi ne li xew université bu doon man la dama leen di bombarde rey ñëpp loolu dafa garaaw euh, waaye lu tax wax ji mën a nekk inaperçu maanaam passé inaperçu maanaam mel ni waxu ko c'est loolu mooy li garaaw parce que wax jii nga xam ni moom la maître El Hadj am na ñu bari tey buñ ko waxoon du passé inaperçu di nga ma wax ne ma bon peut-être dañ naan maître El dafa jege pouvoir bi et cetera moo tax mu passé inaperçu non non du loolu. parce que Cheikh Yérim Seck wax na mais passé dinaa inaperçu nit ñi tegaat nañu wax ji ci penc bi dal na Cheikh Yérim Seck lu tax mu wax lii kon jombale nañ ko wax ji malgré que li Cheikh Yérim wax garaaw gi mu garaaw bi mu ko waxee Sénégal yëpp dañ ne lu tax mu wax lii jombale nañ ko wax ci Moustapha jaxate wax na lu ni mel. sénégalais yi tegaat wax ji ci pénc mi ki nga xam ni mooy Amath Suzanne Camara moom cité na nit nommément ne nañu rey Ousmane Sonko mais sénégalais yi jëlaat nañu wax ji di ko teg ci pénc mi mais bu maître El Hadj ñu mën koo jéggi mel ni comme si rien moo tax maître El Hadj Diouf xoolaat fan la ko sénégalais yi classé parce que loolu yow boo ko defee. doon ci wut lu rëy nit ñi mel ni yëguñ ñi wax nga war nga xoolaat léegi fan la ma nit ñi féetale parce que bu dee ban dama wax wax joo xam ni wax ju garaaw la mais nit ñi di xëy kenn waxtaanee ko ci grand place am na ñu bari maa leen ko wan ne leen euh, dégg ngeen wax ji ah ñenn ñu ne oh ah kon wax na lii <laughs> dem. kon maître El Hadj Diouf fi mu toll nii moom nag moo war a xoolaat ban fan la ne parce que loolu jar na xool parfois il faut ngay xool sa bopp di wax naan ndax maa ngi fi ndax léegi samay wax mi ngi def effet parce que deful effet et pourtant dafa waroon a def effet mais wax ji deful effet donc man su ma doon maître El Hadj Diouf dinaa euh, xo tourné waat. daal ne lii ma wax ni ginnaaw deful effet kon dinaa changer changer stratégie de communication xool neneen nu may waxee ngir mu mën a def effet mais façon bii moom dafa mel ni dafa kadik ci sénégalais yi maanaam dañ ko tàmm dégg di ko tàmm di tàmm dégg façon wax bi ba nga xamante ni bi léegi defatu leen dara kon lii moom doxatul loolu nag dafa nekk loo xamante ni bi lu am solo la loolu day wane rek gi nga xamante ni bi tey foofu la politique bi toll parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bi ñu ngi tëb di leen jéggi parce que li lay wan loolu bu njëkk ba nit ñi complexe bi ñu amoon ci li nga xamante ni bi mooy ku jàng ak ku jàngut gis ngeen ni ko sénégalais yi jéggee jéggi nañ ko mu nekk façon bu extraordinaire c'est parce que nit ñi xam nañ ñi am xel ak xalaat du nekkul ci jàng jàng lenn la ngir dimbali la waaye am na loo xamante ni bi du lu ñuy jàng te léegi nit ñi yegg nañ foofu parce que am na loo xamante ni bi blocage la doon nekk ci sunu réew yi am ñu bari ñoo xamante ni bi dañ leen cee tënkoon maanaam ñemewuñu woon sax jóg di dem di waxi léegi nag ñooñu nga xamante ne bi ñemewuñu woon a jóg dem di waxi ñii déglu ñoo leen wax ne ne ah kañ am ngeen seen place ci pénc bi c'est parce que ñi nga xamante ne bi ñooñu la jàppoon ni ñoom ñooy borom place yi faillir nañ à leur mission dem nañ ba li nga xamante ni bi tey moom la leen nit ñi joxoon muy crédibilité ñu jël ko tayle ko ci marché bi ñàkk ko am ko yombul am ko ba pare ñàkk ko am ba am ko ba pare jaay ko amaat ko li Seex Baara waxoon nee na xajut ci dund kon ku ko am na ko sàmm